waa jërëjëf ñu ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu wuyu bi ngeen ñu wuyu si si point de presse bi ñu organiser tey pour point pour témoigner maanaam suñu cofeel ak suñu témoignage ci le coach Moustapha Gueye par rapport ak fan yi yëpp li fi am démission bi au niveau de l'équipe nationale démission bi au niveau de la comme directeur technique nationale ñuy fàttali rek sénégalais yi parce que tamit nit bu ñu naan ku ko xam mbokk yaa ko xam li mu dëkkal ñoo ko xam et que ñuy wax te li ñuy wax léegi ci réseau sociaux yi di ko ci attaqué lu ci bari dara amu ci ku xam ko su Moustapha xam ni liggéeykat la koo xam-xam ni nit ka koo xam ni nitu défi la résultat la bëgg lu ciy firnde mooy ñun ville de Dakar ba ñu amee projet sportif pour am équipe basket bu taxaw moom la ñu tànn te bañ ko tànnee boobu ba léegi résultat yi am fii ci basket local bi gëj na équipe am ko fi toog nañ par exemple lu ëpp fukki at ak lu topp amul club bu Sénégal bu dem championnat d'Afrique des clubs ci coobareem ak ci xanañteem si lañ fexe ba ñu dem participer coupe d'Afrique des clubs boobu. di fàttali ne ci coupe d'Afrique de clubs boobu si la Ciara bi nga xam ne Sénégal ñu ngi koy soog a xam di ci wax. moom si la ko coach Moustapha Gueye détecté foofu ci Maputo démarché ko waxtaan ak moom ba xale bi nangu ñëw basket senegal tey nag bu ñu ñëwee ba xale boobu génn ci réseau sociaux yi di ko attaque di ko traité yoo xam ni dara du ci dëgg ñu gis nii ñi nga xam ne ñoom lay liggéeyal ci fédération bi amul kenn ku ci jug rétablir la vérité wax wax dëgg gi fi mu nekk condamné act boobu parce que quand même discipline groupe tey ma discipline de groupe mooy que ni waruñu permettre benn jour di génn sur les réseaux sociaux di attaquer le coach di affaiblir un coach dégguñu fédération ku réagir dégguñu chargé communication fédération réagir dégguñu président fédération réagir au contraire dañoo gis ni am na vice président muy troisième vice président fédération moom dafa génnaat moom ci réseaux sociaux yi di attaquer le coach ki technique national donc ñu ñaawlu loolu parce que tamit ay nit bu ñuy ànd dañuy ànd ci mbégte ànd ci lépp ci safaan bi mais munuñu jël lâché Moustapha yi def ko comme quelqu'un boo xam ni la nekkul liñ koy niñ koy wanee parce que li ma leen di wax mooy ñun ñun ñoo ko xam Moustapha yi c'est pas une personne bi nga xam ni dafa violent c'est un gagneur nag et ku xam sport xam ni que ni des fois état d'âme du fa am on travaille pour avoir un résultat mais kenn mësul gis muy violence physique muy violence verbale mu def ko envers une joueuse donc il faut que les gens rétablissent la vérité seulement nag fuggu am na nit ki da ngay am fugg mun nga am pour gagner tu fais tout pour gagner mais dans les limites et que toujours moom respecter na les limites donc je pense que tey aujourd'hui bu ñu bu ñu seetloo niñ ko bëgg présenter sénégalais yi la yoon la pour ñun en tout man de en tant que président ASC Ville car sama devoir la pour ma wax ak sénégalais yi ñu xam ni nit kii niñ koy fi ñu koy dëkkal dëkku fa. déplorer aussi fédération position bi mu am par rapport à à ce dossier donc li si des mooy. di di ñaanal coach Tafa Gueye xam ni li mu gagné basket Sénégal ñëpp xam nañ ko deux fois champion di gagné deux fois champion d'Afrique ah nekk nekk joué quatre fois ou cinq fois euh, finale Coupe d'Afrique yombul palmarès moom fi lay ñëpp sénégalais seede nañ ko donc euh, di ko ñaanal ne ko am na soutien total 100 pour cent ASC ville de Dakar et liggéey bi muy liggéey ñun rafetlu nañ ko te gëm nañ ni aussi basketball Sénégal soxla nañ ko mel ni Moustapha Gueye nit ku baax la ah xam naa nit ku ku fonk Moustapha Gaye la parce que témoigné na ko ci lu bari nit ku comme ni ma ko waxee aussi nit ku déglu ñëpp la te nit ku wax dëgg yàlla ku bëgg basket la mais li may déplorer mooy du sanctionner ñi nga xam ni ci fédération bi la ñu nekk te des fois dañuy am ay comportement wala ay opinion yoo xam ni day indi problème ci basket bi parce que am na ci ñoo xam ne des fois de par sorti de par comportement dañ koy indi ennemi yoo xam ni moom soxlawu ko donc li ma koy conseillé su fekkee permettre na ma ko mooy mu jéem a fédéré parce que ñi nga xam ni ba ñuy renouveler sax ànduñoo ak moom ci basket bi la ñu bokk donc rôle am la mooy mu rassembler ñi àndal ak moom ñi àndul woon ak moom mu jël ñëpp def leen ci même famille pour l'intérêt basketball sénégalais gis nga clan yi ñu koy dugal par rapport ak ñeneen ñi da koy tardeel te day tax du am résultat bi mu bëgg basket bi talent yëpp la ñu soxla basket bi ñëpp la ñu soxla donc li ma koy ñaan mooy mu mu xoolaat doxalin bi ah xam ne fédération bi yemul rek ci membre comité directeur bi kii d'ailleurs ñiy nekk foofu di agité di wax ñu ci bari ah ne amuñu club son ni amuñu club nekkuñu ci club xamuñu nu club di doxee xamuñu nu ñuy fayee salaire xamuñu ni ñuy regrouper match bokk de gens li leen intéressé foofu mooy bu équipe nationale di dem ñu bokk ci délégation fédérale yi ànd ak équipe bi amul dara dara lu ñuy apporter basketball bi donc du ñooñu ñooy def basket bi basket bi mooy ñi nekk les acteurs ñi nekk à la base. ñi nekk à base nekk ci club bi di ci def seen temps di ci def seen moyen ñooñu ñooy bool bi ci ñooñu nag bu dee ñoo xam ne d'accord ñu woon mu nekk président te yàlla def na nekk na président daf leen war a xëcc liggéey ak ñëpp loolu mooy dëgg gi donc loolu lañ koy ñaan j'espère que appel boobu ñu ko def dina ko dégg et aussi dina liggéey pour que famille basket bi doon benn que tout le monde se retrouve pour ñu am les résultats que nous voulons euh, si suñu discipline bi nga xam ni mooy discipline bi gën a titré au niveau de l' Afrique. waaw pour l' intérêt pour leen intérêt national moi je dis que ñun ñëpp Sénégal moo ñu ëpp doole ñun ñëpp bu Sénégal taxawee suñu personne yi lañ koy teg à côté. donc pour l'intérêt national su fekkee ni moom war na mun a dellusiwaat pour continuer liggéey bi muy liggéey si direction technique national moi je suis à cent pour cent prêt pour quand même parler avec le président de la fédération les acteurs pour que Tafa Gueye mun a continuer liggéey bi parce que loolu mooy man sama xalaat ak ni ma xamee nit ki loolu mooy li gën ci ci ci ci suñu basketball bi donc saa moom euh, bu buñ ma ko permettre dinaa ci dox pour que quand même pour l'intérêt du Sénégal mu mun a dellusiwaat continuer liggéey bi mu doon liggéey